coppite yi bëriwul benn yoon ci bile liste ci Cissé daal di convoqué joueurs yi si jogante bi nga xamante ne nii moom la namm amal. ñaari match yu am solo ñaari match importance lu tax parce que Sénégal objectif mooy mu dem euh, coupe du monde. xam ne ñu am na ay match yoo xam ne ay match yu am importance la du ma ne match yu décisif mais match yu am importance la ñaari match yi nag ci ci loolu lañ dugg mën naa wax ni que muy RDC tey bu ñu xoolee seen seen jaloore ci kan bi war ñu mën a am yaakaar ni que xam nañ ni que match bu métti lay doon. donc euh, muy Mauritanie nga xam ne tamit suñu suñuy naataango nañu suñuy voisin nañu maanaam tubaab yi ñuy wax derbi match derbi la. ku bees ci bile liste di Chérif Ndiaye moom mi nekk attaquant étoile rouge bu Belgrade fële ca Serbie Aliou Cissé di xamle ni match bi bu am solo la ngir équipe nationale Sénégal. Euh, Chérif xale boo xam ne la euh, Serbie lay lay joué étoile rouge de Belgrade mu nekk garçon boo xale boo xam ne pratiquement ren dugal na vingt def passe def euh, cinq passes décisives ñu yaakaaroon ni que ni que euh, moment bi jot na pour que ñu woo ko ñu koy dalal bu baax di ko ñaanal vraiment euh, mu egg jàmm ak salaam te nga xam ne yaakaar bi ñu am ci moom vraiment mu wane ko ci ci ci saison bi yëpp. ñaari match yu équipe nationale Sénégal nar a am doon lu am solo ci équipe bi ndaxte dina tax ñu mën a dundee yaakaar gannaaw bu ñu defee match nul seen digganteeg Togo.